gaynde daal la mi ngi nii da ko jëloon si moom taxaa góor yàlla gaynde gaa ngi nii Sa Daga def na lu rëy yëbbal na Cheikh Mamadou Mountakha Gaynde Lat Seck Sa Daga ngi noonu si kanam ak Cheikh Mamadou Mountakha waaye toujours de yéen a ngi leen di wax ak ñoom si Gaynde yéen a ngi koy làq de laata ngi noonu jëbale lem ngeeg Gaynde yi ñu ngi noonu sëñ Mountakha di wax ak moom sëñ Mountakha bég na laat joxe na adiyee Gaynde laa ilaaha illallah laata ngi noonu ñaan nangu leen ñaan nangu leen ñaan may sëñ bi may leen sëñ bi xool gaynde yi may leen sëñ bi xool gaynde yi Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na nga fi yàgg Abdoulaye Seck Sadaga nee na tudde na leen Matlabul Fawzayni nee na tudde na leen Matlabul Fawzayni gaynde tudde na leen Matlabul Fawzayni ndaw sedd guy gaynde tudde na leen Matlabul Fawzayni